AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV moom qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana al uda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min xuluqat waj'alhu dakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 ñoo ngi leen di joxe xikma bi nag fii ci maxat xikmatul yawmi ci institut bi muy daara xikmatul mi nekkee fii ci Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 euh, téléphone 77 712 44 71 wala 77 633 77 56 ngir ñu bëgg bokk ci daara ji wala ñu bëgg a laaj ay renseignement wala ñu bëgg a indi seeni doom ndax njàng mi tàmbali na Eh, tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba xaadimu rasul te mooy wéyale li ñu tàmbali woon démb mooy diggante Serigne si ak taalibe yi te démb ñu daanale woon sunuy kàddu ci waxi Serigne Touba jëm waxoon ne eh, nit koo xam ne bu nekkee fi yow boppam lay liggéeyal lu ngeen yàgg-yàggit da ngeen tàggoo ku xam ànd ba lu muy jariñ ba di ko wut yaa ko xam waaye man xawuma ko gone yi nga xam ne nii ñoo nekk fii ci daaray xikmatul yawmi li ñuy wax ne eh, gone mooy ku ne dama leen di faral di may nopp di leen déglu wala di leen bàyyi xel ñuy léeb wala ñuy waxtaan seen waxtaani gone barki démb yàlla dogal ma dégg ci ko wax kàddu goo xam ne ni eh, diis na lool ba léegi kàddu gi rek maa ngi koy xalaat ndax dañuy léeb ba mu yàgg ñu dugg ci waxtaan naan Serigne Touba nee na am ci ko wax ne sëriñ Tuubaa nee na bu mbooloo doon taxa doon sëriñ kon seytaane ab yonent lay doon muy wax ju rëy joo xam ne nii niru na ma waxi sëriñ tubaa loolu mooy rek mbooloo amul njariñ li am njariñ mooy kenn ku nekk li nga jëfal sa bopp mën a amila saalihan fa li nafsihi ah, ak cëriñ responsabilité la maanaam masuliya la léegi de lañ ko jàppee privilège wala ñu jàppee ko nguur wala ñu jàppee ko ak pal waaye naka jekk ak sëriñ moom masuuliya la sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa masa woo Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal ne leen dama bëgg ngeen doxantu ci réew mi de ca te jaari ca Siré jubli ca sëriñ Siré Lo mu sànna bañ génnee ñu ne gannaaw turu sëriñ Siré Lo la tudd kon nañ fa njëkkee ba ñu demee sànna ñu ne ko ñun ko sëriñ bi dafa waxoon ñu doxantu ci réew mi tudd saw tur moo tax ñu njëkkee la mu ne sëriñ bee leen wax loolu ñu ne ko waaw mu ne ah kon de dafa bëgg ma dénk leen waaye li ma leen dénk nag mooy nangeen defar seen jëmm ba ku leen gis sopp leen ngeen defar seen jikko ba ku dax ba ku jaxasoog yéen dootu leen mën a muñ ne leen bu ngeen doonee ay sëriñ day ñu doon ay taalibe lépp baax te dara du yàqu waaye bu ngeen doonee ay buur ñu doon ay dag lépp yàqu te dara du defaru kon ñooñe loolee déggoon nañ ko ba tax na foofu lañ tegoon seen tànk ci siraatal mustaqim Sëriñ Tuubaa dañoo wax ne mas naa woote ba ñëpp wuy si ba ñëwee mu ne déedéet ñi ci di ay seex laa wax dal ne Masamba ndax ñi ci di ay seex ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp de ñëw nañ Mbàkke sëriñ bi ne leen yéen seex yi damaa bëgg waxtaan ak yéen damaa bëgg ngeen xam ne gor yi ma leen di booleel bu ngeen toogee ci kaw ñu toog ñu toog ci suuf di wuyoo seenu sant mel ni jigéen luñ jur tuddee leen lu ñu am jox leen booleek jooy di ñaan ngeen yàgg fi tiwér dama bëgg ngeen xam ne nekkuñu ci yéen ci seen bopp lañ nekk fa ngeen di xamee ne nag gor yi ci seen bopp lañu nekkoon te it seen bopp lañ doon liggéeyal na fekk ngeen liggéeyal seen boroom mbaa lu ko mooy rek mbett dana am daal na leen xam ngeen nu ngeen mel ci biir nit ñee yéen seex yi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mi ngi mel ni ku am gaal gu rëy ci ab dëkk te rafet nit ñi xam ne kii kat gaal gu rëy te rafet la yor ku xotti ay yére ñëw dénk la ko nga dugalal ko ci gaal bi bis bu xew amee na kenn ku nekk ñëw taxaw ne la ana sama mbubb moo ma la dénkoon nga dind di joxe ba lépp jeex bu fekkee defoo ca woon yow sa mbubb yoo xotti naka nooy def ñu ne ko xanaa ñàkk mu ne waaw euh, bu boobaa day bu ñuy waaj yow doo am loo waajee te ak gaal waajut kenn mës ta gis fenn wala wenn xew ñu naan diw moo fi gën a rafetu gaal kon nag loolu mooy waxi sëriñ Tuubaa ji nga xam ne nii kenn du ko nekk ci sëriñ si ak taalibe yi war na ci xool boppam ni ab seetu ba gis ci boppam